vendredi 7 mai 2021 mbokk yi xarit ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek euh, jàkkaarloo ak yéen di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de ren nii lay demee lépp loo xam ne rek euh, dal dina tàbbi ci làmb ji dinañ toog fii waxtaanee ko faram-fàccee ko baaxee leen ko mais à chaque fois rek ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Diome Babacar. nuyu naa la Ami maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla ay ca nuyoo ak téléspectateur leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ci àjjuma ji di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla defal ñu jàmm def ñu sax du daaray ni mhm. tàppe xol yi comme ni ko maam baax doon waxe mhm. te sànni jàmm ci réew mi xam nga njàmbat yeeg mhm. feebar yeeg yu mel ni kii noonu yi jaaxal doomu aadama yi yàlla na ko yàlla gën a wàññi donte nag moo ko àddina àndaxam dëgg la du fi mën a jógee waaye yàlla na yàlla def rek wàññeeku ba kenn bañ ko yëg baax tey El Hadj di la kañ de. non man tey El Hadj dama koo lijjanti parce que li tax mooy El Hadj maa ko mag. noonu la noonu la maa ko njëkk am soxna. waaw yaa ngi dégg li ma lay wax est nekk loolu tax mu lay jaay affaire. waaw man ba may takk soxna booba moom day jàngi école di gàddu saak di def ABC 2005 la am soxna. am na solo est-ce que la wax moom daaw la am soxna xaw ma. baal ko bañ wàcc plateau. voilà kon duma moromam nañ ko xamal ne duma morom donte mooy sama patron ci liggéey bi nag waaye duma moromam de. te ku la suddee ko wooyee tool waaw ku la jiitu ci néeg bu lëndëm mu la fi ngay toogee nag. na yem waaw wax leen ko nag walaay mbokki Saalum Saalum wax ak moom. Mm, dinaa wax la mu waa Fale. <laughs> ñu bi daal di desiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 7 mai 2021 dañ ñëw kin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëta bu njëkk la ak ñetti contrat ya nga xam ne signé na ko moom la suñu lamb xëy tey samp laaj maanaam daal la mu signé ak Gaston Mbengue maanaam li ci nekk ay avantage pour Balla Gaye ak i tamit loo xam ne ay risques la yoo xam ne war na ko cee mën a fekk mu mel ni am na ñoo xam ne joxe nañ ci seen xalaat que ci njëkk moom mooy Max Mbargane la mu jàpp mooy bu dee ay risques mën nañ ko cee xaar xanaa ay risque blessure daal lay war a doon loolu la Max Mbargane gis Abdou Bakhoum moom di manageru Ama Baldé la mu jàpp daal nee na lu baax la ci moom ndax dina ko may mu nekk mbër moo xam ne dina nekk en compétitivité maanaam daal am compétition bu baax a baax a baax Zallo tamit daa mel ni gis-gisam soriwul lu mel ni kii noonu nee na daal maanaam ñetti contrat yi mu am wala ñetti combat yi nga xam ne Balla jël na ko moom dina ko may ngir mu mën a entraîné bu baax a baax a baax loolu mooy gis-gisu Sàllo mel ni ki nag moom Balla Gaye numéro 2 mooma ah ngir mën a entraîné bu baax a baax INSEPS ga ca Paris maanaam daal fa mu demoon fa la fas yéenee demaat balaa ñoo wore loolu la yëglikaay bi mënu ko xëy wax bokk na ci tamit ñoo xam ne ngir mu mën a entraîné bu baax a baax juróomi technicien yoo xam ne daal ay entraîneur lañ di ay boroomi xam-xam ñoo ko fas yéenee wër tàggat ko ca la nga xam ne ni sumb na ko muy ñetti kombaam yooyu nga xam ne mu nekk nii ngar daajoo ko gàddu ko keneen koo xam ne ni moom jël na komba waaye ka ko yore di nga xam ne moo koy entraîné di tafaatin muy may njing daal may njing moom la mu xëy di xam ne daal na leen am daal fi mu nekk nii daal ah seen digganteeg wala boog seen combat daal maanaam am gi wóoratul fi mu nekk nii daal seenu xel mu dalatul bu baax a baax ci seen diggante ak booy Niang fekk régularisé wuñ combat ba daal bay ñi nga xam ne ne daal seen xel yemu ca ne nañ fi mu nekk nii ñoom itam daal comme jël ay avance daa xew dana na pare nañ de maanaam bu ñu leen joxee beneen avance dana kay lekk loolu mooy waxi ka nga xam ne nii moom moo di mbay ñing ñaar ñi nga xam ne nii moom lekk nañu avance muy Moussa ak Sa ñoom ñaar ñu nga ca sunu làmb ka nga xam ne moom moo di Sa daal la mu xëy di xamal Moussa Ndoye de nee na ko bu yeboo fu mu mën a nekk ci làmb ji bu arbitre bi soufflé maa koy jël si duma ko xaar cherché ko daal lay def fu mu ne ma fekk ko fa leneen loo xam ne gaa yaa ngi koy cherché wala bëgg nañ ko muy amateuru làmb yi muy ay combat yoo xam ne ñu ngi koy laaj bokk na ci la nga xam ne moo di Bombardier rëg-rëg jéen kayre Yékini senior sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne mii moom fi la nekkoon doon bëre ba nar a ñëwaat ci réew mi nag amul combat di bëre waat muy Zarko digganteem ak ma Mandione ginnaaw ba ko moo gét taxawalee moom Zarko nag moom maanaam ñëw ci réew mi la def tey itam nag suba ci samedi jàll woote na conférence de presse ngir nag fas yéenee wax la nga xam ne nii maanaam mooy ak dikkaatam ak fa mu fas yéenee jëm ci digganteem ak Baye Mandione suba daal la woote conférence de presse ba fa nga xam ne nii moom moo di ca Grand Yoff yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne boo xam ne dañ cay dem mu yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di record record daal la mu xëy tey andil ñu ko bokk na ci loo xam ne nii moom moo di combat boo xam ne ñu ngi koy rumandaat di ko wax teñ na Gaston Mbengue bëgg na ko muy diggante Diène kayre ak ka nga xam ne ni moom moo di Zos yëglekaay bi ne naan Zos gëj naa bëre depuis 2018 waaye fay fi mu nekk nii daal ci tànk dikkaat la toll te ka ñuy wax ngir bëgg ko ko jox du kenn ku dul doomi booy kayre ja di Diène kayre Zos nag yëglekaay bi di record dugg na ci moom ak ay victoire am ak i defetam waaye sore taxut mu am ca lu baree bari ndax 13 victoire la am ak 12 défaites yëglekaay bi di record moo xëy ñëw dina ko wax Franc tamit mu parcelle yëglikaay bi ñëw na ci moom ak ndogu ya nga xam ne daal organiser na ko jëmale ko ci musulman yi donte ab chrétien la moom Franc mel ni ki daal faraa moom loolu taxawee na ko mu mel ni kon daal soo bëggee dégg dëgg moom maanaam mbaax amul chrétien musulman nag ku mu mën a doon mbaax xol la yàlla nañ ko yàlla defal ndax Franc jëf jooju mu def jëf ju rëy la te lu jara wax la la may bañ kay mooy ñuy wax dialogue islamo-chrétien loolu amul ci réew mi ndax fii nu ne ñi fi ne chrétien yeeg musulman yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo am problème ñooy dialogue te loolu amu fi kon Franc yàlla na yàlla fay la jëf ju rafet jooj nga def Aïcha mu nekkoon li nga xam ne moo di euh, revue bi euh, bu ko defee nag ñu daal di ñëw rek ci journal suñu làmb Babacar tey xëtam bu njëkk euh, kañ fa gis rek moo di Balla Gaye de ci trois contrats yi nga xam ne signé na ko ak ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue est-ce que du doon ay risque ci moom ki nga xam ne moo di Maxime Bergane wax na ci Abdou Bakhoum wax ci Zallo naka noonu. Mhm. Mhm. ñoom wax nañ ci. foto bi xam nga kañ la woon. foto mm. ba la dese na fi xale dese na fi doon ndaw de ah. dama ne xam nga kañ la xaw ma kañ la. xamoo ban combat la déedéet. diggante mi Gris Bordeaux la woon. ci yàgg na stade Léopold Sédar Senghor. ok. yaa ngi suur bii la woon. Mhm. ci la defoon tent yu weex rasta ba. yaa ngi dégg dëgg la indi jikko lion yi mais bon àddina <laughs> euh, li ma si wax mooy ñetti contrat yi am na ay avantage am na ay risque àddina ci boppam ay avantage la ak ay risque fii nu taxaw nii sax am na avantage yu fii ne ay risque ngi fi ndax man nga fee def erreur léegi mhm. sa loxo dal ci table nga toj ko wala mu daggal mhm, yaa ngi déglu ma la mhm. kon àddina noonu la ko yàlla tëggee ça veut dire que nit ki euh, li ngay def lu mu mënti doon rek li ci am solo mooy même bu fekkente ne dina am ay risque wala ay mm-hmm. avantage fexe koo teg ci yoon rek mm-hmm. maanaam gëm-gëm gi mooy nga teg ko ci yoon ba pare soo ko mm-hmm. tegee ci yoon ba pare boo ko gëmee daf lay jariñ moom déjà mbër la te xam na ne mbër la te day liggéey proposé nañ ko ay contrat jël na ko te itam nekkul euh, il fallait que ñu dellu si si ginnaaw Balla Gaye 2 bi ñuy def kalaaf boobu trois combats lañ amoon maanaam lii du guléet du lu njëkk ci carrière am tamit dëgg bi mu bokkoon ak ñoom Boy Seye ak ay ñoom Ousmane Diop ak Kolifa ñu bokkoon poul mm-hmm, mm-hmm. ba ñetti mbër la la la fa amoon ak ay ñoom Mbaye Diouf jàppal bàyyil genre mm-hmm. déglu ma lax wala boog sax voilà noonu na fa dama woon kon ça dire que lii moom yàgg na koo def mbëri yàgg naa def lu mel te du moom kese car ah, euh, euh, comme li ci ñuy wax tamit muy Max ak Zallo Abdou Bakhoum ñoom tamit li ñuy wax am na bu dee Max la xëy na blessure lay xalaat blessure wa effectivement nit ki blessure moom ci sportif à tout moment mën na ñëw. Mhm. parce que lu nekk mën na nekk cause bi. parce que li ñuy def la contact yeeg yooyu mën mhm. nga cee amee blessure. ma Abdou Bakhoum ak Zallo presque ñoo bokk ay wax. Mhm. ci côté compétition ak entraînement bu doy. defe loolu wax nañ dëgg lii da koy gën a permettre mu xam ne moom. lekk na xaalisu Boy Niang lekk na xaalisu Bombardier lekk na bu Gris Bordeaux. dootu noppalu ci côté entraînement. chaque jour que jëfee mu ngi ci ay da koy may mu Mhm. waaw man ci ci côté entraînement boobu sax dina dem fële ca INSEP bu Paris avant Korité bi euh, cinq techniciens ñoo ko nar a encadré foofu. préparé waaw INSEP si day moom xam naa ne ji jig na ko. Mhm. parce que ku ne xam na ne ba muy bëreeg Modou Lo xarañ. Mhm. INSEP sa la ko préparé te bu ñuy wax dëgg yàlla itam. gis nañ ne keroog Balla Gaye diw bi ñëwoon bëri sa Modou Lo. ah waaw keroog macha allah mu dëgg ngay gis ci moom. kon dafa mel ni foofu mu nekkoon ca Paris INSEP sa préparé fa. olof nag nee njeexaat foofu foreb doom delloo ko sab loxo mhm. kon xam naa da koo bëgg a def fi wolof rek njeexaat na for na fab doom te inseps moo tax mu ne naa fa delluwaat ah. sama loxo waaw ah, wéykat bi ne ko fi nga woo ko foofoo xasee soo see fa noonu la fa demee bu neexee rek nga tegaat ko fa xam naa daa neex <laughs> moo tax mu ne naa ko fa tegaat dellu inseps ak ay cinq encadreur ay technicien loolu mooy liggéey rek am na solo waaw c'est foofu ki nga xam ne moo di mbay ñi ngi nekk nag coach ci Tafatine mhm. moom nee na daal euh, c'est pas sûr euh, ngir ñu amal seen combat seen combat bu ñu régulariser wul mbir yi léegi daal li ñu pare mooy signé yeneen combat bu ñu ko gisee waaw lam moom bu ñu ko régulariser wul au niveau mhm. du CNC moom mënagul a am mhm. loolu moom du mbay ñi du yow du man du sec mais taxaw du hélas lamb dañ koy régulariser ba pare maanaam bu nee diggante ami ak abib taxaw jot nañ avance daggal nañ leen njëg. Mhm. ah def ko sama diggante ak El parce que dama li ma wax jàppal fa ma wax la ko kii daf laa yab. non non kii kii man <laughs> ah. ah. li ma si bëgg a wax mooy mhm. ça dire que lamb dañ koy yóbbu au niveau du CNG régulariser ko mhm. suñ ko régulariser nag joxe date ñu xam ne kat date bi lamb ji moom leer na date bi la war a am parce que après ci loolu la promoteur bi di ñëwee indi li nga xam ne moom mooy xaalisu mbër yi au niveau du CNC bu dee avance la mu indi ko. buñ demee ba lamb ji des ay quelques heures wala ay quelques jours. nga indi seen ay reliquats. yooyu yëpp dañ koy toppatoo. Mhm. loolu nag fekk amul li mu wax am na du siir. pour que lamb ji am mais nag ñu comme li ma waxoon démb laay waxataan. Ah. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla combat bi am. amiin di yàlla Pape Thialis mi ku tëgg. mu réussir ko parce que mhm. làmb ju neex la muy tafaatin ak Boy Niang mhm. am nañ droit tamit bu ñu gisee beneen contrat jël ko loolu la wax parce que seen adversaire bi ñu war a bëril Boy Niang mhm. gis na beneen contrat ba jël ko dëgg la ki nga xam ne moo di Sa Thiès doomu Double Less bi moom mi ngi euh, dànkaafu euh, Moussa Ndoye nee na ko boo resté sur place dinaa ñëw jël si la maanaam fu mu ne mu fekk ko waaw fu mu ne mu fekk ko <laughs> waaw loolu day yàgg Sa Thiès de moom wax dëgg yàlla euh, ci làmbam ci liñ ko xamee ñun mhm. xamuñu ko xaar adversaire dëgg la déedéet mhm. Sa Thiès moom day seet sa ay adversaire kon yaakaar naa te Moussa Ndoye mi itam mhm. xam naa ne ah nekkul mbër mu défensif bi waaw kon yaakaar naa ñaari attaquant lañ man kay damaa xalaat xaarante du fa am daje kay laa xalaat olof naan dox daje dox daje waaw waaw Sa Thiès moom day jëli loolu leer day jëli am ah, na ni ñoom itam dañ koo doonn comme Balla Balla day Sa Thiès day jëli waaw waaw parce làmb song da caa bokk dëgg la song mooy jeexal làmb nag song daa baax ci bëri mhm, loolu baax na waaw Leewtoo bu yàgg moom Hmm? neexul ci làmb. <laughs> ah man na xam naa ne songu neex na ci làmb. man te bëgg nañu. doo ma tontu ci loolu lépp trop bu yàgg. non maanaam de de léew sànde pas làmb itam du xeexu mbedd de. làmb dafa léew too da koy teg loo gis mbër di ko def ci la biir làmb na lu tax. dëgg la maanaam doo ñëw itam rek. Mm-hmm. joxe sa bopp nii rek song. Mm-hmm. dafa am heure boo war a jóg. parce que dañ la entraîné tàggat la waxuñu la rek nga ñëw rek mhm. mel ni kuy xeex-xeex bu mbedd ak patam patam non non mhm. foo war a songe Balla Gaye même buy Sa Thiès dina léewtoo euh, da ah mhm. waaye bu bu mu yàgg buñ jógee foofu rek ñu ñu euh, nga xam ne amateurs yi ñoo koy laaj muy diggante Bombardier ak Reug Reug Diène Kaïré ak ki nga xam ne moo di Yékini Junior waaw loolu de boo am amee mën naa neex parce que li mooy ay mag la ak ay xale su ma nee ay mag nag parce ku ne xam na ne Bombardier moom moo Reug bu buñ koy wax ci làmb tey buñ dee ci côté at wala wala palmarès wala yàggaay si làmb mhm. duñ ci benn Bombardier du si moromu Reug Reug mhm. magam la ci le côté boo ci ah, mën a jël kon defe naa ne tey bu ko waree jël wala ñu promoteur yi amateur yi di ko laaj mhm. su amee may sens lay doon parce que dégg na roi des arènes ñaari yoon looloo am tamit ci diggante Diène Kaïré ak kii ak ki xam ne moom mooy Yékini Junior Yékini Junior moom mag Diène Kaïré ci làmb si dégg euh, ci côté palmarès itam moo ko ci jiitu kon yaakaar naa la mu ko rawee dina nekk loo xam ne mayante sens lay doon loolu nag moo lay wan a garab ci kaw lay fekkante te làmb mayante sens yàgg na ci mhm. Mhm. am na solo bu ñu foofu ki nga xam ne moo di Zarko war a jàkkaarloo ak presse bi samedi insha allah suba insha allah rabbi mhm. Zarko Diallo <laughs> borom Espagne <laughs> waaw l'espagnol waaw parce que xam naa conférence de presse am suba la incha allah xam naa concernant combat am ak ma Mandione ak contrat bi nga xam ne si na ko ak Mo Gates mhm. mhm. am na solo yooyu la xibaar suñu làmb ñoo ko fësaloon buñ paree foofu ñu dem record lañ fa fekk nag moo di Gaston Mbengue moom mi ngi proposé ki nga xam ne moo di Diène Kairé ak Zos mais dafa mel ni euh, amateur u Diène Kairé yi pare wuñ pour Zos de maanaam ñi yor Diène Kairé waaw ñi yor Diène Kairé bokk waaw xam naa daal lu si mën a dégg Zos moom mhm. noonu na bàyyi na làmb Mm-hmm. ci business ci politique yooyu yëpp mm-hmm. amoon na fi mais xëy na ah réfléchir na ba tax tey mu dikkaat mm-hmm. bëgg a bëriwaat ba tax Gaston Mbengue di ko démarché moo jéen kayre su nekkee nag li ma la wax la rek mayante sens lay doon ndax itam ku ne xam na ne ci côté làmb moom Zoss def na ci làmb lu leer nañ marqué na ci empreinte am dëgg yàlla bi muy du mbër mu ndaw déedéet jéen kayre nag xale boo xam ne ci yéeg la nekk fi mu nekki nii ah bu fekkente ne nag déggoo nañu mm-hmm. war nañu mën a bëri mayante sens loolu war na mën a ne mm-hmm. mais bon waa kër Jin Kayre tamit bu ñu gisee bu ñu jàppee ne sos gënalu leen leneen leen gënal am nañ si droit ndax olof ne na pataas mu gënal ñam bi ami ku ñu ci tudd mm. sa avocat daal baaxul ah, waaye daal xam naa ne gas moom fi mu nekk nii loo ci mën a dégg moom mu ngi ci biir làmb ji te xam naa ne combat yu bari bëgg na ko te xam mm-hmm. naa ne arrêté ci la muy taxawal dëgg la mu ngi noonu bu ñu jógee foofu nag ñu dem ci ki nga xam ne moo di Franc nekk nag ab chrétien moom te vraiment ñu ngi koy def muy def ñu ngi koy gis muy def ay jéego yu rafet euh, ci euh, ñi nga xam ne ñoo di musulman yi da doon organiser ay ndogu moom waaw loolu da mooy li ma daaneel sànq rek mhm. am maanaam dialogue islamo-chrétien mhm. man dama naan bëgguma koy di dégg parce que li tax mooy dialogue mooy ñu am problème la ñuy boole ñuy dialogue di waxtaan euh. maanaam bu ñu nee dialogue mooy toog di waxtaan sa fii nag Sénégal yàlla dimbali nañ ba loolu amu mhm. fi amuñu problème ci ay ethnie amuñu problème ci ay diine mhm. déedéet des fois nag xëy na nga gis ay quelques mhm. mal intentionné yu mel ni man mhm. ñoo xam ne dañuy rax ci saaku pombiteer bi rek di def seen ay <laughs> wax wala ñuy wax ay waxi dof mhm. waaye ku ne xam ne réew mi jàmm a ngi fi kon loolu mu def ñu ngi ko ci remercier di ko wax ne loolu rafet na trop parce que ku ne xam ne ne bokkul ak jullit diine moom diineem la gëm muy diine christianisme di ko topp tey bu weeru koor jotee mu génn ci alalam bi ko yàlla muy wërsëgam joxe ay ndogu jox ko ay jullit vraiment duñu mën def lu magnifier ko rafetlu ko te itam ku ne xam na ne Franc ay supporter am mhm. ay chrétien ngi ci ay musulman ngi ci muy ànd ak ay chrétien buy dem làmb di ànd ak ay musulman mhm. kon Sénégal benn bopp boobu mu doon mhm, yàlla bu ko kana yàlla bu ko kenn mën a xar ñaar amiin te waxi maam da baax ya rek nañ tàppe xol yi ami boo duggee si gaal gi bul ñaan sa ëmb kese mucc na gaal gi mucc ñu ñëpp ñu mucc gaal gi bu muccee de ñëppay muccandoo da baax a ko doon wax yàlla na yàlla yokk leeram allahumma amiin yàlla ñu yàlla si barkeem amiin am na solo fa la xibaare jaar Ndar Keppe ma bàyyi la nga tàggatoo. tàggatoo bi de mooy sant yàlla rek. Mhm. waaw ñaan jàmm ci réew mi. Mhm. ñaan yàlla weeru koor wi ajuma ji nga xam ne yaakaar nañ ne tey mooy mujj ci koor gi. Mhm. ah yàlla na yàlla def ñu teewe ko ay koori koori koori koori koor barke. allahumma amiin amiin yàlla nangul ñu sunu ay jaamu jéggal ñu sunu ay baakaar ndax dañoo matadi. bari nañu ay erreur yu ñuy def. ñun en tant que doomu aadama rawatina Babacar. kon ñu ngi buñ ko yëgee suñ ko yëgul parce que nit matul di ñaan jàmm waaye di nuyu ñi nga xam ne tamit ñuy suivre fu ñu mën a ne rawatina les téléspectateurs ñoom mhm. amuñu seen fay yàlla seen jàmm yàgg bu baax a baax a baax a baax a baax waaye tey dafa am koo xam ne fa mu beral ko ami mhm. mooy ka nga xam ne nii mhm. moom moo di sama turandoo Babacar Babacar borom Barça Couture eh, ami kooku si soo damm si loxo bi ñaw lay def mu nga marché asalem ëpp na xale la boo xam ni bu ndaw la waaye bu la ñawalee yére jigéen mm. ah ami faw nga xam ko Babacar borom mar borom Barça Couture am na solo Babacar ñu ngi lay nuyu kenn du yow yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi koy nuyu mu nga marsa salam waaye duy nuyu ki tax ma xam ko rek muy kenn ki sama waaja xam nga ko borom marsa salam Omar Omar Tawa borom garniture ak finition Omar yow kenn du <laughs> a ñàkk Babacar am na ko xam ne day nekk ci ginnaaw caméra bi ci ginnaaw Orange lay taxawee mais buy wax ak jabar yi téléphone day muñ ba tuñ yi ca nopp ya buy wax ak jabar yi waaw waaw normal jigéen da nga koy nopp man daal loolu neex na jigéen kenn du ko nobantu <laughs> nobantu góor day nopp jigéen ba won ko ne dama laa ah, gis nga ne fii di nobantu di di di di capp di kii yooyu warul ah, jigéen boo ko nobee nga koy téye ak fukki loxoog juróom embrassé jàppante <laughs> ngeen tafante lan moo fi jar mer ak góoxi la sonal sa bopp yooyu nekkuñu ci jigéen da nga koy del sourire madame Seck ñu ngi lay bëggee. <laughs> voilà fi daal di yem ak yéen tey ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.